Adja daggit bi ma doon wax démb ci ndaw ngóor si euh, maa ngi koy xool de ses waaye gisaguma ko maa ngi koy wër mooy loolu ñu naan moom la mam mambay ñaa wax waa daa waaw non alaaji waaw waaw déglu leen da ngeen déet nag de il faut ngeen teey dama leen wax ne lu waxu ko gis naa vidéo waaw dama leen wax waxu ko waaw dama leen wax kan moo di ngat ah, ana di ngat yow saa li tax doo teey ah, noonu nga def teg fi waaji di ko tucc tuccal ka jóge ndar wallaay ah wallaay Omar nga jàppale ko ci ma jigéen ñëw feelu fee kii seetaan ngeen jëpp mm-hmm. jàpp kenn yéen ñeent fi di ko tucc tucc ah, dañ ko ko tucc tucc mais affaire Mame Mbaye Niang bi lu am la son bu waaw déglu néew ma la amul de ma jigéen da ngaa dégg mën la amul dégg nga ko ah, maa comprendre li nga wax dama ne mm. ab daggit laa jot Mhm. man choix bi dama bëgg dem ca ndayi vidéo ba déglu la ca la ko jiitu mhm. ak la ca fin ba doog a indi def ci li ma ciy def mhm. waaye moom kay ñu ngi ñu ci internet bi di ko diaboliser victime la du yéen a ma wax ne ma dem leen ci internet bi ku ñu yàq dërëm ngeen indi ko merci beaucoup yéen a ma ko ma dem fekk dërëm di yàqu damaa bëgg a yàq dërëm waa saa du ngeen déglu ah, ah mais bàyyi leen ma eggale waaw léegi garaaw léegi baal ma dem ci li may li may yoon léegi ba suba incha allah baal ma dem ko waroon a indi nag son yi bu ah léegi yow indi ko yow mi dugg ci internet <laughs> léegi yow mi comme yaa bi comme man léegi ñuy buuxante indi ko léegi bu subaa indi ko dégg soxna Ousmane Sonko ñoo ngi koy ñaanal di ñaanal aaw bi yàlla na seen borom kër ñibbi si waat allahumma amiin euh, wax dëgg yàlla ñu ngi koy nuyu bu baax jigéen ju dëgër la néew na jigéen ju ñu teg li ñu teg mm-hmm. jëkkëram ci deram mm-hmm. te demul seen kër mais ba léegi ñoom ñi ngi toog gerre ak ay doom ak yaayam en tout cas bravo mm-hmm. léegi nag am na audio boo xam ne nee nañu aana la. mu ne ci internet bi jamono yi Ousmane ko nekkee fële ca Sébikotane léegi dañu dem ñu déglu ko dellu si nu wax leen ndax aana la am du aana ak mbir yanam la demee ñu dellu si waat. waa ji wax ni bind naa ko tout à l'heure depuis démb ou barki démb maa ngi koy bind ci panel bi. kenn kenn ci groupe bi waratul prononcer le mot grève de la faim. c'est un piège boo xam ne dañu ko tendre depuis le début. donc mot boobu faut le bannir pour wax nag pépp fépp ci panel bi képp ku mën a joxe message bi et waa PASTEF ñu def message vocaux képp ku nekk di wax pour wane comme wax gouvernement bi comme quoi on a vu seen complot bi ñuy bëgg def il faut que ñëpp wax ne que kii du greve de la faim Sonko ñu ngi koy indi lekk mais bëggul lekk lekku kii bi prison bi parce que xam na ne que dañ ko ci empoisonné ñu ngi koy indi lekk mais ñooñu bëgguñu ko jox lekk bi directement bëgguñu ko jox ndox bi directement c'est pas compliqué vraiment avoir c'est pas compliqué ñii gënuñ ñu muus ba pare il faut que ñu ñu leen wax ko ci réseau yëpp comme ça dinañu xam ne que Sonko lu ko jot ñoom ñooy cause bi parce que ñoom ñoo ko tere mu lekk c'est pas compliqué on a deux fronts xeex ci terrain bi mais xeex aussi au niveau de la communication média il faut ngeen wax ñun ñëpp bu kenn waratuñu utiliser le mot grève de la faim ku ko wax rek c'est li ma bëggoon rek mooy ñu euh, dégg jëmmi audio bi mm-hmm. ba nag jokkoo naag kenn koo xam ni dafay jokkoo ko way juru aana jamanka du wax nag kan la mhm. mais kooku daal xamul aana mais yaayu aana la xamanteel di waxtaan ak moom mhm. mu waxtaan ba mu jox ko ana waaye laata aana di wax moom yaayu aana wedd na ni du aana te beneen bi mooy ndaw si ni mu nuyoo ci audio bi jàpp naa soxna Ousmane Sonko ëpp na fi xeex bi toll muy gudd dugg ci groupe bi whatsapp yi passé mhm. naan leen nii lay demee wala li jëkkëram di di souffrir mu koy génne ci ab ab groupe whatsapp kon pour leeral rek maanaam audio bi du jabaru Ousmane Sonko. macha beneen bi mooy Omar dégg ngeen li xew ci biir dafa génn rek ñu taf ci fotoom ki ko def lan nga jàpp ni loolu la ci jublu ba tax mu def ci fotoom nii soxna Ousmane Sonko loolu la wax. waaw mhm. euh, xam ne tey jii li est-ce que mën ñu koon tuddee diffusion de fausses nouvelles. Mhm. vraiment. waaw ah, bu dee lu jub ñu tuddee ko ko. kon bii waroon nañ ko ci boole. Mhm. léegi Ousmane Sonko. léegi ojo bi bu doon sa audio soxna mais après et après waaw ah. mais nit ki boo koy duma teg lu ne boroom këram depuis 2017 ak tey jii mais kooku bu doon wax sax ba wax lu ëpp sax war nañ ko mën a baal. est-ce que li ñu ciy mooy. Hmm. Euh, poison bi mu tudd ci biir ni moom moom lañ ko bëgg a def. léegi ñu jàpp ni bu doon soxnaam ñu ne ah kon soxnaam moo wax lii kan moo ko wax ni ko dañoo bëgg a poisonné Sonko. dem jëli ko tey est dafa bëggoon a jàppalu soxna Sonko. non du du jàppalu soxna Sonko pour man liñ ci jublu mooy amuser galerie bi. mooy dugal nit ñi seen xel benn mbir mais tey ji bu doon moo wax sax lu ëpp. Mm-hmm. soxna Sonko laa wax de. mais li mu daj yëpp. mais xol ak xottu leket ñoo yem mais. bu buñ feesee tuuru. Mm-hmm. parce que liñ leen teg kuñ ko teg jot sa ji ko. Mm-hmm. Mm. si. te gëm naa ni comme li nga wax soxna Sonko ak fi situation bi toll. Mhm. du jamono ji lay wax ci ojo déedéet mhm. ci ay groupe waaw wala ba ci ay groupe te bu ko doon wax du ko wax ci ay groupe mhm. parce que li fi xew ni ci diggante bi danoo ba dafa bari. bii moom moo ci mujj. léegi yëpp bu amee mooy gars yi da dama ne danoo ragal Sonko. ragal ragal boo xam ne bu doon tey dee na. waaw maara de taal yàlla buñ ci egg. gëm naa ni. dinañ dem sax ci bàmmeelam guddi di xool naan waa ji su ce que jugaatul est-ce ce que est-ce que ju est-ce que jugul est-ce que vraiment. mooy loolu. kon ki def ah. lii lan nga jàpp ni mooy jubluwaay bi parce que kii ko def li am na lu mu ciy jublu moom. non lim lim ciy jublu. Hmm. mooy bëgg wan rek situation bi Sonko toll fameem nekkuñu ci dal nekkuñu ci lii nekkuñu ci lii. te man mosuma gis la femme de Sonko muy aaw di ñaareel ñu impliqué wu ci débat politique bu Sonko bu dul di image bi ci solution mu doon présenté femme bi ñu ànd mu def fulaar bi à part ça mosuma leen déglu politiquement mi doomam mi jabaram. Mm-hmm. ba ci ay gorom ba ci yaay ji ko jur sax politiquement ñuy wax ci ay mbiram. d'accord mais tey jii coono bi muy dund ca prison lan bëgg rek gën a accentuer. gën a tamit wane ni waa ji nekkul ci grève de la fin mm. peut-être waa ji dafa nekk ci logique parce que li mu wax nii du audio bi rek laa ko njëkk a déggee de. Mm. mooy le fait que lekk lekk prison communication boobu xaw nañ ko fi def ñaari fan ñetti fan peut-être que dafa duggul ci bopp opinion bi mais bi muy door grève de la fin bi am na ñu ne du grève de la faim moom moo ko tax a jug mais lekk yi ñu koy jox. biir prison. Euh, la wóoluwul. Mm-hmm. moo tax mun ko lii loolu jot nañ ko fi wax ñaari yoon ñetti yoon après jël wax jooju teg ci suuf. Mm-hmm. parce que nag lu tëw feeñ dafa yàggul te grève de la faim du loo xam ne nit du koy nëbb parce que le fait que nga mën a jugee. Mm-hmm. Sébikotane dem principal mooy wane ne am na lu xew. waaw ah, d'accord waaw bu dara xewlu woon moom gëm naa ni gars yi bëgguñu ko bëgguñ koy tëralee ca principal principal nit du fa tëgg sagoom aywa jërëjëf mhm. ma jigéen sànq euh, borom xabaar yu wér yi Abdou Top nga xam ne macha allah ku am information la te mën a dégg nee na ma Diop kii wax lii daa mel ni sax bitim réew la nekk ndax ni mu déggee wax yi ndax itamit ndaw si deful ab audioom rek jàllale message am ñii monté daa di gaawtu mhm. ni baatu aana jamankaa la ndax jàpp ni loolu mën naa nekk. waaw man jàpp naa ne ndaw si deful deful deful daf doon audio parce que ñoom si combat la ñu nekk parce que tamit am na fooy toll ñuy teg sa leader yenn kii yi nii yenn difficulté yi nii il faut tamit nag say militant ak ay say sympathisant ñu ñu ñu ñu yëglu parce que ku nekk jaar na euh, si loolu Mame Mbaye Niang yi ngay wax nii tout à l'heure hmm. jamono yi avant Macky Sall di nekk président de la République. bu combat. parce que expliqué na ko fi ñu dégg dégg ko ba gars yi indiwaat ko di ko di ko baax euh, loolu ku nekk am nga ci sañ-sañ mais nag le fait ñu jël euh, jabaru Ousmane ko teg ko ci man li tax gëwuma ko même boo waxul woon ni que yaayam am na ko expliqué ne jot na kook yooyu noonu mm. man ba ma njëkkee dégg vidéo bi laa ne ne lii du dëgg parce que Ousmane Sonko yàgg na si jafe-jafe yi mu mm-hmm. nekk te mosoo dégg benn jabaram mm-hmm. mu yey ci yàb bi bala mu am ci lu lu mu ci def benn yoon laa laa gis ni peut-être mooy keroog bi ñu ko jëlee mm-hmm. mu xaw a craqué tuuti te loolu ku nekk nag c'est normal sa borom kër bu ñu ko tegee yenn yii nii ba fa dëgg yàlla ñu jël ko di ko yóbbu injustement nga teg ci sa bët di nga am noo taxawee loolu ku nekk mën nañ ko ko nangul mhm. parce que ku nekk rek danga koy xool ci ci sa bopp mais yii nii ñuy teg nii di indi ay vidéo yoo xamante ne nii wala gars yi di def parce que yàgg nga fi indi ay affaires yoo xamante ne nii ñenn ñi li leen ci dugal du leen rek lu dul jaxaseel wala salteel wala gën a yokk ay problème mhm. Ousmane sonk ci lii mu nekk nii képp ko xam ni bëgg nga ko da koo war a ñaanal mu génn ci mais tamit su fekkee ay saay-saay dañoo toog fee di def lu leen neex te mhm. jabaru Ousmane Sonko musul def loolu tamit diffusion diffusion de fausses nouvelles genre yi nii dañ leen a war a enquête yi jàpp leen lan moo tax ñu indi lii ak ndaw siy wax lan moo tax jubluwaay bi wax wax ji lan la woon mais pas di toroxal wala ngay def ay affaire yoo xamante ne ni. du def hmm. rek du di yokk ci xar mi. waaw parce que ndaw si wax lii Euh, sax waxam ji dafa garaaw. Mm-hmm. léegi moom fan la amee information. waaw Ousmane Sonko dañoo dañoo bëggoon def poison ci euh, ci ci lekk ci lekkam. mais baa di wax ay jabaru jàmbur ak mm. yooyu noonu. nañu bàyyi wax mm-hmm. doomu jàmbur kon mu mel nii mën naa nekk euh, ñaari victime. Mm-hmm. ndaw si mën naa nekk victime. aana mën naa nekk victime. est-ce que du ñuy monter jotul itamit site yi bu fekkee site yu crédible la. nga bañ a jël audio jàmbur rek taf ci ab photo daani diw mooy wax. son ñoom aana dañ leen di félicité wax dëgg yàlla. waaw xam nga lan. Mm-hmm. jigéen ak ja jigéen ak jëkkëram. Mm-hmm. dafa jege. si seen jëkkër ñu wax leen viol. Mm-hmm. wallaay wallaay ñu toog muñul ñu toog muñ. ñu ñëw waxaat ko la ñu wax leen lu ñëw rek ñu ni sonko sonko sonko. bu mujj bi ñu ni daal fàcc téléphone. mu bari ñu barikaade seen kër. waaw ñu toog di muñ. ñu jël seen borom kër. Mm-hmm. fekk ko mu dem jumaa ñu ñëw ba ci yoon bi. Mm-hmm. ñu tee ko fekk ko këram jël ko yóbbu ko. Mm-hmm. ñu toog di muñ. kon lim ki muñ loolu lépp muy des années. depuis deux mille dix neuf. seen jëkkër di di di subir ay affaires yu metti ñu di ko muñ. kon kon du lu tuuti lu tax ñu génn di wax. meluñu ñu man. dëgg la melul melul ni waaw am na ñu attanul lii quoi attanu waaw bu doon man attanuma ko te bu doon man génn naa ba wax mhm. parce que li lekk ci xol lu nekk ci xol rek reflété ci kanam mhm. te jëkkër ak jabar danoo danoo jege jege goo xam ne mhm. luñ ko def rek da lay laal mais teewul ñoom ñu toog muñ xam nga diin sa jëkkër viol nga toog di ko muñ kenn mësula dégg nga wax kenn ñoom moom ba tey aana dañ ko doon sosal naan dem na këram dem na kër yaayam ba tey dégguñu ko dégguñu ko wax kon donc ñoom danoo gore am na jigéen ñu bari ñoo xam ne ku mel bu doon man mii craqué naa bu yàgg te kon mënu du ma ko mën. d'accord parce que mais dañoo kon ki def loo jàpp ni moom la ciy jublu. pour man euh, day day day wane ni seen soxna soxna Ousmane Sonko yi danoo sonn déedéet tel n'est pas le cas juum na. parce que hmm. audio bi yàgg na te képp ku ko gis ci internet bi soo ko defee ni man ba ma ko ba ma ko déggee dama ne lii lii affaire de kii la. lu fluide lu loo xam ne amul la yow doo ko gëm mhm. parce que koo xam ne yow imaginer jëkkëram 2019 ba tey mi ngi ci ay problème te kenn musul kenn musul na dégg ñu wax dara kon donc tey lu ndaw lii dina tax ñu wax benn yoon laa ko gis mu craqué te jour boobu man mi wallahi azim mhm. bi ma gisee mu yuuxu vraiment jour boobu sama xol dafa dama ni man bu doon man damay bu doon man lépp ci man laa koy fee te lépp rek lu ñëw rek da koy xool ci sa bopp tey borom sa borom kër ñu hmm. jël teg ko ay tuuma nga toog di muñ sa borom kër ñëw ñu jël ko di ko yóbbu ci même que njabootam nekk fa ñu ñëw hmm. jël si la yóbbu la loolu dafa metti sama yóbbu macha allah voilà dafa metti trop nag wax dëgg yàlla aywa jërëjëf suka alaaji hmm. ndax def ci photo aana bi daa nekk yoon wi gën a gaaw wala message pour jàllale gaaw a jàllale message bi moo waral ñu ne ci làpp ab photo aana wala ndax tooñ ko la wala ñàkk xam la ki ko def. waaw xam nga Sonko moom. Hmm. mooy dem jumaa ñu tere ko mu jóge jumaa ñu jàpp ko. Hmm. Sonko <laughs> ay mbiram moom. Hmm. <laughs> dafa doy waar. Eh, ba tax da lépp lu ci laale rek. Eh, day kéemaane mais boo xoolee wax ji. ndaw si wax. ndaw si est-ce nag groupe yi groupe yi nga xam ne moom lay envoyé audio bi. ñaata ñaata waaw wax na ay panel rek mais tuddul groupe. non non groupe waa groupe bi rek lay wax. waa groupe bi. Mm-hmm. est-ce que si groupe la doon waxee sax donc est-ce que groupe lay waxee. donc mën na nekk audio bu ñu préparé parce que ndaw si boo dégloo wax ji dafa weddi lépp lu waa Pastef di wax da ko weddi moom lépp lu Ousmane Sonko ne maanaam li ñu bëgg a nasaxal. mooy grève de faim bi sonk Sonko grève de faim moom lañ bëgg a askan bi ne du dëkk. te ndaw si boo seetee audio bi loolu lay wéral. Mm-hmm. parce dafa wax ci biir wax ji daal grève wut waaw maanaam kon dafa gedd <laughs> foofu la ñu bëgg a dugal quoi baatu gedd liñ koy jox maanaam ñu ngi koy jox lekk waaye dafa gedd lekk yi waaw mais nekkul ni dafa def grève de faim hmm. comme ni nga xamante ni bi noonu lañ ñu koy waxee hmm. moom ndaw si lool foofu la ñu foofu la ñu bëgg a dugal quoi le fait que nag ñu daal dee def ndaw si rek prip rek hmm. daal di jël photo aana ne jabar ji la damay jàpp ni euh, ki def audio bi ak ñi ko monté sorewuñu dut kenn waa parce que ni yëf yi demee parce que le fet que rek parce que yow mi boo déggoon audio rek doo ne jabaru Sonko la dafa am ku bëgg a joxoñ nit ñi ne leen jabaru Sonko mooy wax ak bëgg mu gën a gaaw a tasaaroo pour mu gën a gaaw a tasaaroo pour mbir mi gën a loolu ah, loolu moom mooy jubluwaay mbir mi mm-hmm. léegi nag liñ ci jublu bon le fait que boobu bëgg nga ni déggoo aana mu wax mm-hmm. mooy euh, moo lay wan ne la weddi wut dëggalut mm-hmm. bon ñoom ñi ngi fi ñu neewoon quoi parce que jàpp naa ni le fait que boobu ba nga ni waxuñu te dégg nañu audio bi mais génnuñu weddi wala ñu kii jàpp naa ni bu ñu leen puusoon foofu rek. Mhm. Euh, léegi ay faiblesse commencé feeñ. comme que mhm. boobu ba nga ni Sonko moo nekk ci kanam boo jàpp defe naa ni bon consigne la. boo mhm. xamante ni bii tey. Euh, ñu ngi koy topp te baax na peut-être ñoom la ñuy forcer. pour ñu génn wax daal di ne. waa këram. bu sum jabar ji sax génn wax bu mhm. génnee wax nag gars yi commencé ci biir waxam ñu commencé wengal waxam attaqué ko moom ah, maanaam dugal ko ci ci ci géew bi ah, dugal ko ci géewu coow li ah, géewu coow li géewu coow li boobu ba dëgg ni Sonko mi ngi koy gérer tuumaal nañ fi njabootam ne génn nañ waaw dem nañ seen kër aana def na lii yàgg nañ leen a forcé pour ñu génn mais bi gën a garaaw waaw doomam ji ñu doon wax son bi ki ñu wax naan ko rawale na ko waaw doomam jaa ngi woon fi nekkee keroog bi Sonko defee déclaration ni doomam ji amul waaw am na ku ma man ko saa yi ne woon kii dem na mu ne ah gaa yi ko wax. waaw gaa yi ñooñu gaa yi moom nee nañu wax xam nga <laughs> xam nga lépp solo lépp solo lépp solo ci àddina daal. waaw mooy que ni forcé nañ leen mais gis nga euh, temps moom day àtte day leerali mbir. mën ngaa hmm. liñ ñaan fendu bi jaaw. Hmm. mën nga mën ngaa def loo xamante ni bii. parce que boo seetee ni muy affronté di wax ni day wane ni man ak euh, kii ñoo bokk. Hmm. Euh, fii ci yéen laa bokk nii laa def nii laa def yi yi may gëmloo daal ne man la bon ñun ñooy kii yi dafa xaw a bari trop quoi ci biir euh, boo dégloo ojo bi ni nga xamante ne bi maanaam ci li nga bokk mais ni mu koy xëccee. Mhm. di ko fësal ci biir kii bi daal moo tax ma jàpp ni euh, bokku ci. da nga jàpp daal li mu waxee daal kiiwu ma ak convaincre ma. d'accord waaw parce que dafa ñëw daal di weddi. Mhm. loo xamante ni bii tey. Euh, parce que grève de fin boobu moom mooy li nga xamante ni bi tey ci la Sonko ne ah. waaw donc bu boo seetee moom jaar na ci yoonu ministre bi lekk na beñe dem lekk na ki lekk lekk na loolu la ndékki euh, na naan na kafe Ibrahima Sall mooy beñe bi moo euh, Ibrahima Sall ñëw ne laal na beñe xam nga kii na xam nga yooyu mooy yi nga xamante ni bi ñu ngi soofantal ah. li nga xamante ni bi moom parce que kee bi mu ñëwee dégg nga Pape Ale moom defut lii lekkut moom moom ba tey dafa kii waaye kii ndékki na maanaam li ñuy wan boofu tamit papaale saay euh, li ngay jéem a kii ni dëgër dëgërul euh, waajaa ngi mos de c'est que genre ah. yooyu la quoi affaire yooyu la quoi <laughs> yoo xamante ni bi moom lañ jéem xam nga tey nit bu ñu la ba téye rek am na ñu bari ñoo xamante ni bi bu ñu leen téyee xibaar yi day daw maanaam lu metti la nekk nii fi mais ñaar ñi mais ñaar ñi dama dégg ñu naan ay division de fausse nouvelle ah, léegi ñii hmm. léegi loolu kan moo koy lijjanti ah kan moo koy lijjanti de. ah loolu la audio bi waaw. ah, ah audio bi fi mu toll par exemple Omar ak kii li ñu wax la loolu kan moo koy lijjanti léegi. waaw léegi ah, ñoo ko war a lijjanti. ko mën a gis ci àdduna audio bi neexut a lijjanti. da ko mën a da nga ko mën a gis ci àdduna maanaam lu dal ci opposition bi euh, procureur autosaisir loolu mën nga koo gis. ah man de mosuma koo gis. maanaam tey ma toog fii tey sosal euh, Bougane waaw mbugaan ma toog fi sosal mbugaan ah, wala ma sosal Pape Djibril léegi ah, léegi léegi dama koy sosal rek léegi procureur auto-saisine loolu mas na am hmm? man de mosuma ko néew ma amul demee mosuma koo gis comme ma sosal ab opposant rek procureur auto-saisine Mm-hmm. mas na am. déedéet mm-hmm. non non du du sosal ab opposant maanaam dafa graaw. Mm-hmm. bu dee li wax ji du wax ji tuuti quoi. poison poison dafa graaw ay yooyu maanaam du du wax. mais est-ce que def audio bi ki ki def audio bi est-ce que mi ngi ci territoire du Sénégal. Ah, mais loolu dafa concerné état sax mais le fait muy wax ne. dañ ko bëgg a poisonné rek. loolu rek waroon nañ ko lijjanti son yi te bëggul seen lekk. loolu graaw na xam ne dafa am benn affaire bu bu am son yi bu. waaw xam ne Sonko euh, fekk nañ fi yaayam Ziguinchor. ci affaire parrainage waaw. dugg ca kër ga déggoon naa ñu naan da nga bu mësaan di jàng da koy topp ak yooyu noonu xam nga yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yi ngay dégg la. Mhm. tey jii ñu wax la yu bari ci Ousmane Sonko moom moom li dal ci moom wax ma la njabootam mais fenn rek lañ mës a mhm. mooy ay soxnaam. dëgg la. maanaam bu dee doom ji am na fu ñu jaar bu dee yaay ji am na fu ñu jaar bu dee jëmi Sonko am na fu ñu jaar bu dee ay militant am na fu ñu jaar ak ñoom. bu dee ay xaritaam mais soxna yi lan atteindre gul Mm-hmm. lii saa wax nag conseil boobu ñoom dañ ci war a jàpp mooy noppi bi. Mm-hmm. calme buñ fi génn di weddi. non xam nañ ko le fait que ba bëgg ni waxuñu. waaw ah, ñu ne ci moo lay wan ne la. noppi bi am na lu ñu am na lu ñu bëgg. day wax ne ki tekk moo jaaxal. Mm-hmm. tekk waaw tekk rek wolof nee na boo ne tekk tekk war lay wax fi mu toll tey euh, depuis que ñuy wax. ñoom ñu ngi ne tekk nit ñi xamul xamuluñ leen dara mais bu ñu waxee rek ci biir wax ji di nga gis mën nañu wax benn muu rek ñu orienté moo bi mu nekkaat. aussi biir yoo xam ne ay yeneen politique lay waaw xoolal son yi bu ça veut dire que. Euh, nii ñu ne tekk tekkaar ah, seen jëkkër waxtaan na ak ñoom. waaw waaw dëgg la. du ñàkk tekk tekk waaw ça veut dire que seen jëkkër waxtaan ñoom. non li xam bu leen tontu. mais lii dafa jiitu maanaam éducation bu rek dafa jiitu politique man man man man mm-hmm. wallaahi azim. bu doon mën ma ko bu doon wax nga bu yàgg. wax naa bu yàgg kon journaliste journaliste yi ñëw rek ma toog dinaa jooy. kenn mënu laa yow kenn mënu ko mais mais su ka responsabilité bi su ko yanu. waaw su ko Boubacar yanu woon. waaw dina la préparer. préparer sa njaboot bu ma préparer. non bañ a préparer du ma préparer. am na loo xam ne da ngay da rek. exemple exemple waajooju waajooju doon saaga njiitu réew mi nga xam ne man bis bu ñu tëgantee voilà moom mooy ñaaral personne boo xam ne naa leen bis bu ñu dajee ci mbedd bi dinaa leen duma mmh. ndax saaga yi mu saaga woon président waa jooju tey saaga yi mu doon saaga président xam nga Marième Faye Sall mosul génn di tontu waaw mais keroog bi ñu toogee France lu mu ko wax lu la président def ma nga koy saaga mais xam nga tey bu newoon di audio ci groupe yi wala muy audio ci kii dañ naan mais soxna njiitu réew nan la mën a nekkee di tontu kuy saaga njiitum réew billaay cest à boo nekkee bu am na loo yenu sukaa sa jëkkër war na la préparer hmm. kii kenn ko ah? préparer ba nga xam ne yow yenn yi yow tey Boubacar bu nekkoon président di nga ah, préparer ay jàmbaar lañ dem dëgg yàlla lu ne dégg nañ a ah, hmm. daa am foo xam ne dañ fa war a yam waaw hmm. xam man mën naa di critiquer président Macky Sall parce que damay jàpp lu ñëpp bokk lañ ko dénk. Mhm. kon ñun ñu ko dénk sañ nan. naan ko li ngay jar mais man daf ci am loo xam ne dama ko interdire sama bopp. mooy mhm. te jubluma ci dara dama damay jàpp ne nit ki ak njabootam nit ki ak liggéeyam pourquoi Marème Faye. pourquoi je suis très critique Marème Faye je suis critique. mais daa foo xam ne xam lu tax ma koy épargner ci lu bari. Mhm. dama naan kii soxna la bokkul dara. ak politique bi. ak politique maanaam noonu tey jii man man ma yare sam bopp ci ni mën naa di critiquer ak Sall mais soxnaam ma teg ko fële. dëgg la mais nan respecté noonu soxna yi Sonko yi tamit. Mm. maanaam jëmmi Sonko. maanaam li naan ku ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp. Mm-hmm. te siw di jàmm borom kooku Sonko la. Mm-hmm. lu ñu ko wax mun na ko attan. waaye du lépp lañ ko war a wax nag yaayam doomam ay jabaram. Mm-hmm. da leen war a génne ci li Sonko. di dund parce que métti na ba pare. mais am na foo xam ne boo fay dur sa baaraam mais da koy gën a gaañ. Mm-hmm. yow am na lu lay teg nga mën ko muñ mais bu eggee sa njaboot rek. doo ko day dis gan. des fois ñi koy def aussi tey nañu sóor ni. Mm-hmm. am fois waruñu fa egg. ak famem la famille elle dafa voilà même nit ko bëgg man mun naa toog fii di def yenn yenn yi may def mais ci man la yam mais bu ma jégee am na fu muy egg rek. da ngay mun naa di ko dékku. mais am na fi muy egg rek day day métti. te léegi Sénégal yamatuñ ci jëmm yi. Mm-hmm. mais dañuy dem ba ci dugub biir famille pour maanaam bu soxor googu laa xamul. du la blessé naan ko am dóor nit ba mu dee nga koy dëggate. Mm. dëgg la te doo te li ma jaaxal mooy doo ko doo leen gis ci ay image ba ba ba li genre li leen metti di feeñ la preuve mooy bu ñu tuddee waa ji tuddee woon Cheikh yi ñaari soxna yi da nga leen gisee waaw waaw ñëpp gis nga leen ñu ngi kontaan firi te am na genre maksukaa ñii suñu tegoon loolu <laughs> fu ñu génn <laughs> dam naa salaamaaleykum di bënn suñu bët yi di jooy xam nga loolu tamit nag wax dëgg yàlla ñoom daal yàlla leen yàlla suñu borom taxaw rek te defal leen jàmm ay ca mi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi noonu en tout cas daal nañu defaraat euh, mbir yi mhm. euh, procureur nag na na maanaam bu mu jaawale mhm. waajoo ju nekkoon bitim réew moom it na gaa yi bàyyi audio bi ñuy partage ndax tuub na mooy ki doon saaga njiitu réew mi euh, gaa yaa ngi actualisé waat kii bi foo ubbi TikTok ba ah. ma ngay ki mooy ki boole woon procureur yi juge ak magistrat yi euh, ak euh, soxna Mariam Faye Sall ak suñu njiitu réew mi wax leen lu ne gaa yi génne war nañ audio bi procureur nag na xam ne ojo boobu lu yàgg la loolu daa neexut a teg ci télé waaw daa neexut a teg ci télé mais xam nga Kaliphone victime la mais loolu mu doon yàq njiitu réew mi ak procureur yi juge ak magistrat comprendre fi ma waxee dama ne victime la ci internet bi. Mhm. maanaam génnewaat na lu mu doon wax njiitu réew mi. Mhm. ba mu mel ni tey la ko wax mais loolu mu doon wax ñi ko teg ci télé. moo tax ma ne procureur na xam ne audio boobu yàgg na. Mhm. comme yàgg na nag bul def na nga defoon Assane Diouf ndax Assane Diouf jëloon nañ ko fi bañ ko téye ñu ni ndeka yàggoon na. kon procureur nañ xam ne audio Kaliphone boobu lu yàgg la. yow ma la yar. vraiment ah, bu <laughs> am na solo lool.